ba tey mbokk site internet Adouna Buzz TV ci procès boobu nag la ñuy daal di desandi ginnaaw bi nga xamante ne dañoo condamné ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko mu ñu reconnu coupable daal di koy tëj ñaari yoo xam ne duñ ko tëdd teg si deux cent millions yoo xamante ne amende la ki nga xamante ne moom mooy procureur de la république nag moom nag la mu sàkku jamono ji mooy mandat d'arrêt ñu def ko ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko au mu daan ko ñaari mois ñaari weer yoo xam ne duñ ko tëdd moom mu ngi sàkku ñu daan ko ñaari atu kaso donc benn at boo xamante ne da koy tëdd